cetera seen ambulance tey le maire bu nekk ci benn communauté su génnee foofu mu bokk ci liste départementale par exemple le fait que mu nekk assemblée c'est un avantage parce que pour man les deux sont complémentaires. c'est un avantage Par, pour qui? non je veux dire bu fekkee mu ngi jouer fonction bi au-delà de la fonction du maire l'Assemblée nationale ce sera un levier parce que le rôle du député c'est d'aller faire des plaidoyers. d'accord dem nekk ambassadeur gox bi. maintenant bi ma bañ mooy nga maire. man amoon na may ma ma terminer boobu je en phase avec Bamba Fall waaw léegi léegi xam nga xam nga lu tax ma la dégluwoo ma dama ne dafa am ay loi yoo xam ne boo koy def copier coller dañ ko war a bàyyi une loi elle s'adapte à la sociologie d'un pays dang ne si il fait son travail normalement c'est toi qui viens de dire qu'on n'est pas dans un pays normal non alors comment voulez munoo nekk dans un pays bëgg les gens normaux loolu mënul nekk beneen bi mooy gis nga Euh, je crois que li Omar Faye di wax ci Ablaye Wade nit ñi jooy nañ lay Wade dëgg-dëgg yàlla xaaral ma wax ko tuuti sax ndax su ma génnee ci mbedd mi sanu si bàyyil paa bi bàyyil paa bi bàyyil paa bi wàññeeku non jooy nañ ab Ablaye Wade parce que moom bi mu fay nekk am na loo xam ne mosu ko nangul Abdou Diouf daka daan wàcc ci mbedd mi Ablaye Wade mosul dem tëdd Qatar di bëgg a diriger un pays par WhatsApp. da ngay gëree moo tax je di toujours aux karimistes que Karim Wade n'est pas un fils politique de Ablaye Wade c'est est son fils biologique. Hmm. Ablaye Wade kenn mosul wàññi loxoom. l'homme l'opposant je l'ai toujours applaudi le président de la république loolu beneen affaire la Macky Sall xam nga lu mu njëkk a tegal gars yi hmm. ah parrainage hmm. gars yëpp nelaw mu ñëw tegal leen découpage ci ay âge rek la leen di jàpp parce que li Cissé wax c'est tellement logique mi ngi mel ni ñu ne néeg bi fi la ñuy defee émission yi mais booba dix personnes rek ñoo fi nekk Mm-hmm. je parle des communes et des découpages. Mm-hmm. ñu commencé découper ñu am mille personnes mais mënatuñ ko faa defee. Mm-hmm. ça veut dire que xam nga découpage li muy indi sur le plan financier. sur un travail administratif sur des discussions politiques ci ay années lay nekk. donc gis nga beneen bi nga xam ne ni dañ leen faa nax gis nga Amadou Mahtar Mbow ba mu paree liggéeyam. Moustapha Sourado moo yoroon commission de réforme des institutions. Uh-huh. gis nga ñooñu li ñu def ci assises nationale yi ak ci réforme yooyu est-ce que dialogue politique bi indi na fi lu bees. mais li Ronsard di wax fii tout a été dit. Uh-huh. le président de la République. li am problème Sénégal moom xam na ko. su fekkoon dafa am volonté pour régler ses problèmes dans le code électoral dans le processus il n'a besoin de rien du tout il lui suffit parce que qu'est-ce qu'il ne sait pas Olof Ndiaye dafa wax mu ne gune gi juddu nawet moo xam néeg yay ta néeg yay senn ca dëkk ba te Macky Sall nawet la juddu nekk na premier ministre nekk na président de la république nekk na directeur de campagne nekk na lu ne kon xam nga problème bi ña mu dajale dialogue national ñooñu ñëpp ce sont ses complices ba mu santee nit ñi liggéey ñu jox leen ko mënoon leen ko appliquer mais xam nga lan mooy problème bi pour terminer Talla il a bien dit Macky du mbuur mbër muy sëng sëgg di bëri te parewul mm. Napoléon dafa wax mu ne avant d'engager une guerre il faut avoir quatre-vingt-dix pour cent de chance de la gagner Sall quatre vingt dix pour cent lay wut te gis nga bu ñu demee nii nii nii nii ci élection locale yi imaginez mu perdre yenn communes yeeg yenn département yenn villes yi psychologiquement il populairement il est affaibli. Mhm. quatre troisième mandat du ko ñemee ŋaang mais gis nga su top ka gars yi toppee muy découpé. di dem di ñëw dajale ay nitam ba nga xam ne nii il est prêt. Mhm. ne bëreet gars yi dem mu jàpp opposition beeg ñëpp ci ville yi duma leen vingt 2024 day taxaw ne je veux être président de la République te xam nga euh, kii nu mu tudd nen gis nga Macky Sall. Mhm. dégg naa waa ji ne le vrai combat n'est pas venu mais bu buggee nekk ne dafay nekkaat fi président de la république xoolal ça veut dire que la Ablaye Wade doon bañ marché sur de cadavres pour aller au palais on s'en tient on s'en tient à euh, sa déclaration le 31 décembre 2018. peut-être très bien waaw nee na c'est de l'orange même bu fekkee sëñ Saliou d'accord ak man. alors <laughs> ma ñëw ci ma ñëw ci euh, ci monsieur le maire laata may ñëw ci sëñ Saliou euh, ñu ngi gis ne que ay kàddu jub na par rapport à la ville de Dakar ku ci mel ni Barthélémy Diaz waxee candidature am ñu ngi dégg également yeneen Soham Wardini lan lañ mën a jàpp déjà ci ci ci statut de la ville de Dakar parce que gisoon nañu également ay ay wax allant dans ce sens. bon d'accord dinaa la tontu question bi mais professeur maa ngi lay déglu léegi mais je pense que am na question boo xam ni tamit foog ñu jàngat ko il faut ñu jéem a xool les rapports de Macky Sall avec le PDS. parce que tey ñi taxoon ñi naan ñi ne ñi naan PDS parce que ñi ci ëpp ñëpp dem nañu fekki Macky Sall. Mhm. des fois man je me pose la question lan moo xew xanaa peut-être. li Ablaye Wade doon wax naan période libéraux yi dañu war a gouverner cinquante ans mooy waaj a nekk dafa am. pour yow lan la wala déet. je comprends pas mais man li ma comprendre mooy. tey euh, régime Wade ñi ci ëppoon doole ñëpp tey muy maître Ousmane Ngom Souleymane Ndéné far Farba Senghor Awa Ndiaye ñu Ablaye Baldé ñoom ñëpp tey jege nañu Macky Sall de trop. li fi des karimiste rek a fi des. mais pour le parti ñoom Badiane Aminata Mbengue Ndiaye. ah non ñooñu parti Tanor bi non non loolu moom. ah waaw ñoom ñu ci coalition non loolu moom d'accord ma ci wax jooju sax moom ma dugaloon kaso. comment nga bañ dem wax jooju sax ma dugaloon kaso loolu moom ànduma ci parce que lu tax ànduma ci tey. Hmm. tey mën naa leen nangu sax ñu ni. Hmm. Tanor moo ni woon nañ na ànd ak Macky Sall mu am deuxième mandat mais fa la ko Tanor yemale woon. tey parti parti boo koy créé conquête pouvoir la. Hmm. bu dee am nga pouvoir peut-être noo téye pouvoir bi la tey PS nag tey même bu ko Tanor waxoon Tanor deuxième mandaa la wax tey PS tey PS waruñu koy yóbbaale am nay kàngam ñu war na taxaw tey. fu mu su ma doon su ma nekkoon place su Aminata Mbengue Ndiaye. comme patrimoine ko su ma nekkoon place su Aminata Mbengue. Uh-huh. dinaa ne Macky Sall ay la yéwén. bi muy dem deuxième mandat la ñu dénkaane woon ci yow kon bu jeexee sunu parti kat bëgg na li nga bëgg. Ah, ndax parti bi daa war a dem. parce que am na kàngam am na ñu ko mën a yor. Hmm. sinon bu ñu demee mouvement de soutien la ñuy continuer doon. mais ni nga analyser kaw PDS bi lan nga ci lan ci bëgg a wax exactement. parce que dama seetlu rek n pas tout dama seetlu rek nii. Uh-huh. waa PDS koo ci am yaakaar tuuti mu gën a jege Omar Sarr dem na. déggatuma tamit euh, avocat bi daan ànd ak moom maître. Euh, euh, ah Sall maître Amadou Sall donc pilier PDS yëpp tey ñu ngi ak ki Sall boo xoolee parce que karimiste ak tuutee fi des. même le maire le PDS est là non le toujours là mais ñi àndoon ak Abdoulaye Wade ci gouvernement mujj bi laa wax. dama gis ni ñi ci ëpp ñëpp ñu ngi dem te problème amul man des fois dam na est-ce que Abdoulaye Wade sax géré leen au sommet ñoom ñëpp à la fois parce que ak boo ko seetloo ak. élection euh, présidentielle bi mu ne amul candidat yoonam nekku ci ak fa ñu demoon seeti président Guinée beeg yooyu yëpp des fois mën na ëlëm sama bopp mais xam naa ne Ablaye Wade du cuune ci politique. mais man PDS bi man na a bon. mais man PDS bi man na. ñoom ñoo ñu gën a trahir. man PDS bi man na a dem si euh, daal mooy PDS bi nga xam ni. Ablaye Wade fa la ko tegoon quoi PDS boobu nambaat naa ko ci opposition bi. pour yow Ablaye Wade mais parce que pour pour pour yow pour yow enfin suñ la déggee nga wax suñu si on sait lire entre les lignes ça veut dire que euh, euh, le PDS n'est pas de l'opposition nekkul ci opposition bu fekkee président Ablaye Wade moom mooy coiffé entre les deux. qu'est-ce que ça veut dire concrètement xam nga le problème c'est que ña ñu daan toogal at yi paas yëpp ci PDS ci opposition. dañ dem ba si yàgg ñooñu roccee ko dem Omar Sarr toog nañoo ak moom keneen toog nañoo moom mais ñañ daan waxal pratiquement. mais ñoom loolu la ça n'engage pas le parti. donc li ma laaj sànq ci affaire taxawu Dakar ma tontu ci. Barthélemy Diaz ci droit am la nekk ku nekk sañ nga première foog mu am ku nekk sañ nga ni bëgg na mais le ma venu dinañu toog ñun ñëpp seet ci ëpp chance ñu jiital ko tey ñoom ñaar nga dégg mais am na ñeneen ñu bëgg te waxaguñ ko tey Cheikh Gueye bu ko neexee ni bëgg na. Babacar Mbengue mais bu ko neexee ni bëgg na man su ma neexee ni bëgg na kenn moom mën a tere bëgg tey ñi fi nekk candidat ci Dakar ñëpp ëpp ñu ma expérience ville de Dakar parce que j'ai fait 12 ans d'adjoint au mais de Dakar tey je suis le premier adjoint au maire de Dakar ku ma gën a xam ville bi mais le problème c'est dafa am foo xam ni dama jàpp ni waxam moo jotagul mais ñoom duma leen blâmer am nañ droit ni lii bëgg nañ ko ndax pouvoir bi mhm. rakku Marème Faye sax nee na bëgg na am na ci droit bu leen kenn blâmer mais tamit du tere tamit ni bu ñeneen bëggee nañu dajale ñëpp le moment venu ñu toog xool ki ñu ëppal chance taxawu dakaar dina am candidat mm-hmm. man tey sax li ma jàpp mooy xalifa Sall daa war a ma nekkat candidat parce que man tey sax ci loolu laay xeexe di jëmpul pour coow lu jeex parce que Khalifa Sall d'après information yi ma am dara munu dara yàqul n'est-ce pas ay mbiram pour mu nekk candidat kon tey man tey sama xeex dee demee mooy fexe nu Khalifa Sall sax nekkaatee candidat parce que tey gisuma benn texte ci condamnation bu ko interdire mu nekk candidat. laaj naa ay juriste ñu ne man non ci condamnation amuñu fenn fu ñu ko téye mu nekk candidat. baax na. donc bu loolu mënee nekk ça règle le problème. mais loolu. Euh, mais man <laughs> peut loolu damay bàyyi loolu loolu damay bàyyi sëñ Saliou sëñ Saliou wax <laughs> parce que sëñ Saliou li muy wax ni euh, euh, waxuñu ko. day neex mbokk rek élection gis nañ sax ay nit yu dem di bëgg réformer justement ces ces articles là donc moom naka la mën a analyser justement cet état de fait. on parle même d'amnistie pour Karim Wade ak Khalifa Ababacar Khalifa Sall n'a jamais demandé d'amnistie. non il l'a pas demandé. non Khalifa Sall. n'a jamais demandé d'amnistie xalifa Sall xam nañu ni ñu ko tëjee xam nañu nuñ ko bàyyee te ba tey amul benn juge ci jugement bi fu ñu ne dootul mën a nekkati candidat il a perdu ses droits civiques. mais pourtant Karim Wade n'avait pas perdu ses droits hmm. civiques. mais on au Sénégal. waaw comme on est au Sénégal est-ce que yéen sóoraale est-ce que yow tey le fait que nga ne. Euh, xalifa Sall candidat est-ce que c'est pas pour fuir le débat sur le leadership. non fuiruma débat. non damaa gis ne Omar Sarr amoon na fi interdiction de sortir ñu xëy mu ne président génn. oui mais mais débat bi dañuy intéressé monsieur le maire débat bi dañuy intéressé mais suñu waxu réformer l'article L31 c'est pas am na ay ambition. Khalifa bu ñu ko téewee c'est euh, la dame euh, Soham Wardini moo nekkoon intérim. Mhm. tey euh, comme yow ni nga remplacé woon kenn. Mhm. tax na nga am ay Euh, Barth aussi loo ko mën a waxal am na légitimité politique comme yow ni nga ko amee demain on peut se retrouver keneen jógaan ne taxaw Dakar est-ce que loolu nekkul affaiblissement wu seen camp pour man le vrai débat tey ma ne lii problème bi yàlla na ko yàlla def mhm. tey bu ñu nangoo ni te yàlla def ne Khalifa Sall mën a nekkaat moom bu yëkkatee loxo kenn du yëkkati. d'accord donc pour yow moom mooy la solution consensuelle. moom laa bëgg. parce que Khalifa Sall bu nekkee candidat ça règle problème parce que tey juriste yi ñu laaj yëpp nee nañu lire nañu condamnation amul fu ñu ko ci tere mu nekk candidat. mais mais est-ce que loolu du nekk absence de générosité si diggante. maa ngi ñëw cher c'est Bamba Fall qui se bat c'est qui se bat qui qui se bat est-ce que Khalifa ñëwaat parce que bëgg nañu daal non non non non non non non mais tey kan moo mën a tere nekk candidat à la ville ci suis le premier juin mais tey c' est pas le moment yu tas opposition bi tas coalition bi taxuñoo jóg. Hmm. tey dem ba bu amee ñaar ñetti candidat bu ñu mënee waxtaan ba mu nekk benn moo ñu gënal mais bu ñu demee nag ba xam ne suñu dénominateur commun mën na nekk candidat te bu yëkkatee coow li jeex mais dañu ñaan yàlla lu jeexal coow li mais du daw débat bi de li muy indi kañ mooy. ñun ñëpp du man rek de ñëpp am légitimité. mais Bamba est-ce que le même poids politique nee na baal ma rek le même poids politique bi Khalifa amoon avant ak léegi parce que au vu des dernières élections euh, Grand Yoff moo nekkoon bastion gis nañ foofu il a été euh, gis nañ aussi si présidentielle yi au niveau de Dakar gis nañ. Euh, yu bëri yoo xamante ni jàppoon nañ ni xalifa Sall amoon na fa doole am na maire yu mu àndaloon aussi notamment ñoo ñëpp dem est-ce que le Khalifa d'avant c'est le même que le de d'aujourd'hui man li ma la yëgal mooy boobu mm-hmm. Khalifa Sall ci kaso ko fekk campagne ul mm-hmm. gisuñu ko mais maire bu dem mm-hmm. yow yaa dem mais jàppal ni askan mi dem jàpp non jàppal ni réforme bi ñëw bi ñuy tëdd liste mooy nekk candidat mm. mooy nekk le maire mm. amul woon bu njëkk ba suffrage bu njëkk ba dañ daan gagné ba pare di ko lijjanti ci suñu biir kon bu njëkk ba jëmm Khalifa Sall taxoon na ñu bari gagné valable ci yenn commune hmm. man dama nangu loolu sama commune dama xeex gagné hmm. mais maire yu baree bari Khalifa Sall fal ko à la ville moo leen falaale woon mais tey bu ñu demee bañ ni diw mooy tëdd liste tey bu gañewul du nekk maire boobu la ñuy xam ndax kooku am na fa doole am na capital personnel lu mu lay may mais am na loo xam ni coalition ba ak programme baa koy may Oui, alors sëñ Saliou j'en venais à toi par xamante ne ñu ngi wax sax ni dañ ko waroon réformer. waaw xam nga euh, code électoral bi dafa am euh, problème ak euh, surtout le code pénal parce que soo xoolee code pénal bi en réalité Bamba jun ko léegi ci code pénal bi bu ñu sukkandikoo ma nañu wax ne Karim wàdd ak. Khalifa Sall kenn tanu ay droits civiques d' mhm. le jour même où on a prononcé le verdict concernant la condamnation de Karim le ministre à l'époque de la justice Sidi Kaba. Mhm. organisé woon na benn conférence de presse ba wax loolu. effectivement en réalité Karim Wade n'a pas perdu ses droits civiques. qu'est-ce qui s'est passé entre temps. il y a eu beaucoup de manipulations Cheikh Omar am na benn affaire mu doon wax. surtout sur l'article 31 là bi ñu dugal euh, glisser le mot électoral c'est parce que par la suite il y a eu beaucoup de manipulation moom ci biir et en plus aussi code électoral bi dafa am loo xam ne daf ko wax ne su fekkee ne ne am nga benn peine boo xam ne carcérale purgé nga ko en réalité tu n'es pas électeur tu n'es pas éligible donc je dis que foofu dafa am benn problème bu fa am entre le code pénal et le code électoral te loolu jusqu'à présent dañ dama am un petit problème à bon avec peut-être Omar et, et Bamba quand je les entends parler aussi. Mhm. j'ai l'impression que Omar yow société civile. j'ai l'impression que aussi toi nekkatoo aussi un homme de l'opposition parce que ba ngeen di fois opposition bu. commandant bu mool bi boo ne bon société civile bi di jox ma mu njaay Cissé man damay am problème parce que Omar yow leeral askan bi c' dans la société civile moi j'aurais compris que nga ne ñun waa société civile suñu combat et cetera ñoo indi lii <laughs> mais nga bëgg jël aussi indexer les gens de l' opposition ba pare bëgg jël ne ba y' a une autre société civile boo xam moo moom mooy def le travail à la place or moi ce que j'ai remarqué même société civile bi tey combat démocratique nga xamante ne moom lañ doon mënee dans les années passées en fait y a beaucoup eu de ramollissement am na ci taxawaay bi ñu leen doon gisee taxawaay boo gis ñu ko or man je me suis dit que dans un pays une opposition peut être faible mais une société civile doit être forte parce que société civile ci boppam moom mooy c'est-à-dire moom mooy rempart ci li nga xamante ne mooy surtout euh, moom moo war a nekk à l'avant-garde des des conquêtes démocratiques opposition ñoom seen i ñoom seen seen kii rek la ñuy xool seen seen intérêt politique la ñuy xool or une société civile dafay xool l'intérêt même des citoyens te man jàpp naa ne 2011 2012 citoyen yi nga xam moom lañ doon mëne en fait aujourd'hui mën nañu wax ne d'ailleurs Babacar Fall on a tenu une euh, émission dans l'essentiel moom sax reconnaître na que ne taxawaay bi ñu amoon en 2012 taxawaay boobu amuñu amuñu ko aujourd'hui en 2021 qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que ñu casser cette société civile au point que